UCAB FM. li gën a fës ci yéene kaay. Papa Saer Mbaye. bis. simil Sadio Mané mooy ki gën a fës ci yéen yu bari daanaka kenn ku ci ne xëy di ko kañ kenn ku ci ne ak nanga koy tàggee sunu naataango yi xëy di xamal ne gaynde football gi nga ne kon daanaka buñ koy xool moom mooy ñaareel ki nga xam ne kon moo ci gën a xereñ ginnaaw kii di Karim Benzema doomi France nga xam ne kon moo jël raw gaadu gi yéen kaay xam ne ballon d'or bi xam ne kon doon na ko xëccu moom ñaareelu toogam la mujj jël moom Sadio Mané yéen kaay xëy di xam le ne luñ ci mën di nemmeeku xol bu rafet boo xam ne kon am na ko ak taxawaayam yéen kaay bi di la solo moo xëy di nettali tàgg bi nga xam ne kon njiitu réew président Macky Sall ma ngi koy tàgg di xam ne rek ne bu dee jongante ak ay morom ci wàllu ko bal bi di football bi ku te fa bi nga xam ne kon mi ngi koy taxaw askanam koo xam kon moom kii di Sadio Mané ko trophée doon raaye bi nga xam kon moom la ñu xool lii euh, ki nga kon moom moo di kartu yaram bi nga xam kon moo gën a bàyyi xel aw askanam ñu tudde ko euh, trophée Socrate yéene kaay bi xëy di xamal ne moom kii di Sadio a euh, sargal démb yéenekaay bi ba it tey xëy di xam la rek ne lu ñu mën di nemee ko xol bu yaatu bi nga xam ne kon bàyyi na ko xel ñi nga xam moom di ga mu bi moo xëy ne moom day kii di Sadio Mané génn na waaye nag nga xam ne kon moom daal taxawaay bi yéenekaay bi di Le Soleil xëy di xamal ne kay fi nga xam ne kon fa la toll daanaka ku koo xam ne kon mas nga faa toll yéenekaay bi xëy di xamal ne ballon d'or boobu la benn Sadio benn kii di jortweya donc mooy africain bi nga xam ne moo ko mas a jël ci atum 1995 booba ak léegi nag gis ñu kenn ku ko jege yéen kaay bi xëy di xam kon moom moo di euh, Sadio Mané egg foofee ndax naka benn jéggi ba ko jiitu l'observateur yéen kaay ñu xëy di ko nette yéen kaay ba tey xëy di xamal ne luñ ci mën nemeeku moom moom moo di ko kañ nañ ni nag moom dugg na ci buntu boo xam buntu bu yaatu la te doon na ku danañ ko fàttaliku ci li nga xam ne kon moom moo di footballu àdduna bi ba tey xëy xamal ne mbégte dëggantaan la indi réew mi source ba tey sunu naataango yi xëy moom xam le ne ndam a rëy naam jëlu ko ci cay kañoo a ndamu su naataangoo ba tey xëy di xamal ne kay Sadio Mané ak taxawaay bu a na ko ca doon lu bàyyi nañ ko ca xel loolu politique a na loo xam ne kon yëngal na lool

yéenekaay bi moo xëy di xamal ne kaaraange ga foo ko takk weesu na ko mbuur ak lu ko wër yéenekaay bi xëy di xamal rek ngir li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko nemmeeku tuur boobule mën a am ci ni nga xam ne kon noonu wara yéenekaay bi moo xëy di xamal ne kay fu mu na fu ne diggante waa APR ak Pastef sunu xam ne mayante wuñu dara ci li nga xam ne kon moom moo di doxantu bi nga xam ne kon Ousmane Sonko xëy di xamal nag ne luñ ci mën di nemmeeku fi mu toll nii ñi nga xam ne ko ñoom ñoo di préfet yi kay daanaka nelawutuñ ñoom itam ba yaan door ndax xamuñu ban tànk la ñu war a taxaw ci li nga xam ne kon moom moo di doxantum Ousmane Sonko bi yéen kaay bi moo xëy di xamal ne kay fu mu toll nii kay ab jafe la ñu nekk ndax dañu koy tere ndax dañu koy bàyyi mu dox ab doxam yéen kaay bi moo xëy di xamal ne jafe-jafe ya bëri na ca loolu luñ ci mën di nemmeeku ñii di waa gendarmerie ñoom nag dugg nañ ci li nga xam ne kon moom moo di ba ci ndigalul préfet yéen bi moo xëy di xamal rek na luñ ci mën di nemmeeku cortège bi nga xam ne kon Ousmane Sonko moom moo ko jiite loole nag doon na loo xam ne kon lu yëngal li nga xam ne kon moom moo di nguur gi ak ay kilifaam su naataangoo yi xëy di xamal nag ne luñ ci di nemmeeku taxawaay ba moom taxawaay bu pëccëxoo dëggantaan lañ ci jot a nemmeeku ba tey leneen loo xam ne kon nemmeeku nanu ko ki fi nekkoon ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr yéeni kaay bi moo xëy di xamal nag ne fi mu toll nii daanaka lëndëm dëgg ci lay dox ndax naka luñ ci di nemmeeku li nga xam kon moom moo di wàccam goo xam ne kon wàcce na ko ci li nga xam ne kon moo jëmoon ci wàllu kan législative yi ne kon gagné woon nanu ko ca yéeni kaay bi moo xëy di xam le ko keneen koo xam ne nag fi mu toll nii moom itam ma ngay wane boppam nekkoon na fa ay jamono joorin Mary Teuw Niane kaay bi xëy xamal na koo xam ne kon bàyyi nañu ko xel lool ci ñi nga xam ne kon ñoo fas yéene wujje ak APR ak ñamu àndal yenn kaay bi xëy di xamal ne kay Benno Bokk Yaakaar ñoo nekk ci ak guuta dëggantaan ndax nag ay kàngam yoo xam ne saa su ne tekki seen doom tànk wala ñu leen wan ginnaaw yéen kaay bi xëy di xamal ne kay jafe-jafe la luñ ci mën di nemmeeku leneen loo xam ne ah, ba tey nemmeeku nanu ko mu doon lu métti lool askan na lool yéen kaay bi xëy di xamal ne daanaka lool laal rek fi mu toll nii jafe-jafe la li nga a jël ci na la bëgg mooy njëg yi naka la man def bëggun koo mën a oyofal gis seen bopp nga xam ne fi mu toll nii ña koy gis ci li moo di loxo yoon moom mooy ki nga xam ne kon moom moo di kaay bi di eh, igfm point sn rek na luñ ci mën di nemmeeku am na dakaractu point com ñu koy nettali yéen kaay bi nekk ci internet ne li doxoon ci diggante El Hadji Ndiaye bu 2S ak njaganduur yéen kaay bi boo xëy di xamal ne tax nag ki nga xam ne kon moom moo di njaganduur teg nañu ko loxo jamono ji ma nga ca kaa bu tribunal bu ndakaaru yéen kaay bi xëy di fàttali ne ay mbirum fréquence yoo xam ne kon dañu wax ne ñi nga ñoom ñoom ñoo di waa TFM dañu ko luubaloon ci kaw 2S kaay bi moo xëy di xam ne loole nag fi mu toll nii moo nekk ca loxo yoon ba tax nag jamono ji ñu ngi koy gëstu suñu naataangoy xëy di xam le ne ci mën di bi moo xëy di xam le ne ab la bu ña ngi ko cay jànkonteel suñu naataango yi di igfm point sn ñoom ña nga ca kàddu yi nga xam ne kon Pape ak Cheikh ñoom nag a ngi koy yëkkati a rek ci wàllu xale yi ak jafe-jafe yu ña ngi koy jànkonteel yéeni kaay bi xëy di xamal ne jafe-jafe yu tar xam ne kon xale yi ñu ngi koy jànkoonteel te nag loole bëgg nañu ñu taxawu leen ci li xam ne kon moo jëm ci wàllu yi sunu naataango yi ba tey ah, xëy di xamal rek ne jamono ji ngi koy jànkoonteel doon na loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel sunu naataango yi ñoo xëy diñu ko nettali APS ñoom itam ña nga ca diñu nettali jafe boo xam ne kon liggéeykat yi nekk ci RTS fi mu toll nii ah, ña ngi koy gàlloo yéenekaay bi xëy di xamal rek ne fi mu toll nii kay mbiicog mbaalo ah, gi nga xam ne kon moo nekk ci diggante ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di syndicaliste yi nekk ci seen pix banqaasam ba nekk ci RTS ak ñii di njiit ga yéen kaay bi moo xëy di xam le rek ne jabo jafe ya fi mu toll nii kay ma nga gën a bëgg wuli ñaay ndax ñi nga xam ne ko ñoom ñoo di syndicaliste yi fas yéene wuñ juye maye dara APS moo ñu koy nettali mbokk yi yéen li gën a kaay Papa Saer Mbaye